problème extrait yi nga xam ne xale yi juddoo Mbàkke entre 2002 et 2010 wax dëgg yàlla ñu ñuy porter préjudice ndax lan man temps yi dafa am benn concours boo xam ne dañu ko organisé woon muy concours d'excellence euh, bi nekk Diourbel lycée Diourbel bi euh, mu amoon ay doom Mbàkke yoo xam ne dañ ciy déposé woon sama doom ci la bokk ñu déposé woon seen dossier vraiment remplir conditions yi biñ jàngee année scolaire boo xam ne nii bien rempli ñu décarcassé wu ci vacances yi aussi ñu doon def ay cours de vacances pour préparer concours boobu déposer donc un dossier mais malheureusement acte de reconstitution bi nga xam ne moom lañ déposé au niveau de la DEXCO ñoom dañ ko considérer comme un jugement ce qui n'est pas normal du tout pourquoi ce n'est pas normal parce que xale yi dañu am seen extrait ñu dépo ñu déclaré leen à temps ñu am seen extrait ñu toog ba daaw bi nga xam ne nii waroon nañu leen a defar extrait pour ñu dem ci concours boobu extrait yi fi nekkoon kat nangam nangam tey ñu ne ñu dafa lakk suba ñu ne ñu ndox mee ko yóbbu ginnaaw suba ñu ñuy ay explication yoo xam ne nii qui tiennent pas la route au niveau de l'état civil de Mbacké ñu ñuy wax explication yooyu bi ñu nag li ñu wax mooy soit da ngeen def reconstitution soit ngeen def annulation ak jugement ñu ne leen ñun suñu xale yi nga xam ne dañu jub dans les règles de l'art leen defal benn annulation duñu leen defal jugement j'ai été voir donc euh, au niveau du tribunal le greffier en chef mu ne ma dañ koy defal reconstitution de caution boo ko deferee c'est comme si l'acte était euh, comme l'acte d'avant rek du am benn problème du doon jugement nga def loolu j'ai payé huit mille francs dem def loolu ñu déposé ko malheureusement à notre grande surprise bi liste bi génnee sama doom ak ñeneen doom kii seen seen candidature ñu rejeté ko au niveau de la Texto parce que ñoom ils ont considéré ko ça comme un jugement te ñu dégg naa sax ils ont fait appel à un juriste pour ñu statuer ci cas yooyu loolu nag vraiment muy loo xam ne dañ ko déplorer te nous n'allons pas laisser passer duñ ko bàyyi mu jàll parce que xale yi dañu am droit def examen bi concours bi comme tout le monde parce que ay sénégalais ne man j'aurais compris que euh, euh, concours bi am feneen sax ñu mën a xalaat loolu mais fii au Sénégal ñu xam ni xale yi kayit yi ñu kii amul benn magu amul benn benn kii buñ ci def jugement de wàññi wuñ seen at changé wuñ seen kii dara du seen prénom yaay du seen prénom papa du seen dara du seen prénom donc defe naa ne xale yooyu war nañ leen a mën a autoriser ñu bokk ci concours buñ ko deful en tout cas ñun dinañ jël voie de recours yi nga xam ne ni moom la ñu yoon moom yëpp pour que xale yooyu ñu rétablir dans leur droit dafa dem sax man pour entretenir avec le président du tribunal ba xamal ko loolu ne ko dañoo déposé woon euh, acte de reconstruction bi ñu considéré comme un jugement ba xam moom lu ma ci wax euh, xalaat euh, xelal léegi nag li may wax aussi leneen li mooy li ñu mun mënta nangu te wax naa ne dama ne parents d'élèves Mbacké yëpp dañ cee war a jóg mooy ñi nga xam dañoo am seen këy ñoo xam ne dañoo am sax seen volet un am bulletin de naissance seen gos ñu déclaré ko à temps waa mairie bi ci seen càggante fexe ba waa mairie bi seen càggante fexe ba dossier yooyu euh, kii yooyu réer registre yooyu réer defe naa ne xale yi waruñu leen a sacrifier li ñu war a mën a def mooy waruñu ku ñëw rek ñu ne la da ngay def reconstitution wala da ngay def annulation jugement war nañ ñi nga xam ne am nañ seen kayit en bonne et due forme ñu bàyyi leen ñu jël seen kayit ñu defal leen kayit au niveau de la mais mairie boo fa

te erreur am na erreur am na nañ sanctionné ñi nga xam ne ñoo def erreur yi maintenant léegi ñi nga xam ne dañoo am kayit en bonne et due forme bu ñu demee foofu ñu defal leen seen kayit loolu mooy dëgg mooy yoon mais ñëw naan la président tribunal bi nee na man du ma defal kayit du ma def nii du ma def loolu tegul fenn laa wax tegul fenn voilà